kuréel yi ngeen gis fan yi ñuy ay kuréel yu bàyyi ko fii ci Touba almaxrosa jëm ca dëkk bu sell bu màgg ba muy màkkatal karama ak madinatul munawara muy ay taalibe murit yoo xamante ni seen yéene ak seen xalaat ak seen mébét mooy dem fa ngir def ko ab liggéey boo xamante ni dañ koy yéene Serigne Touba ak di ca feeñal diggante sëñ Tuubaa ak yonent bi ak cofeel gi mu amoon ci moom waaye di ca feeñali tamit kan mooy xaadim rasul xaadim rasul jooju ñu bëgg koo feeñal ak diggante yonent bi ak sëriñ Tuubaa euh, taxawaay bi nga xam ne sëriñ Tuubaa amoon na ko loolu lépp nag ay bi jóg fii di jël ci seen wërsëg ak seen alal di dem bi nu demee ñu bëgg faa wanewaale kan mooy sëñ Tuubaa ak njàngale di fa yëkkati xasida yi nga xam ne sëriñ tubaa mi ngi ko doon tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay côté yu fasantikoo waaye ci ay jafe-jafe yu métte métte métti mu ci doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola ñu dem ba àgg ca suuf soo xamante ni yonent bi tudd na fa wala dox na fa ñu dox ca suuf soo sa ngir jottali tàgg yooyu sëriñ tubaa loolu nag ku nekk xamoon na diggante sëñ Tuubaa ak yonent bi ñu bare bari dañuy li fii ci histoire ci eh, yoonu murit di wax ne sëriñ bi waaj na lu man ñetti yoon yoo xamante ni dafa bëgg a dem fële nga xam ne moo di màkkatal mu karama waaye lépp lu ci waaj ba àgg ci mu am ay gàllankoor ndax xam ngeen ne sëñ Tuubaa dafa nekkoon ci résidence surveillée Eh, bi mu nekkoon ci njaareem ak digganteem ak tubaab yi tubaab yi mayuñu ko woon mu génn waaye moom waxtu wu nekk da doon xëy jàpp ne bis bu nekk dana xëy dem màkka ba dégg ngeen ni mu waxoon sëñ Masamba Diop Sam yaakaar naa ne waajal na ko lu man ñetti yoon am na naar bu mu waxoon ne ko bu may dem sax ñooy ànd ak ñu bari ba ci sëñ mbàkk bu somi wax na ne mas na ko wax ne ko dinañ ànd dem bu nu àndee xaside yam ko waxoon ne ko di ko fa jàng wala dinaa ko fa jàng yooyu yëpp jàpp naa ne ay wàccaay la woon waaye ginnaaw bi yàlla dogalu ko waaye ànd ak loolu lépp nag sëñ Tuubaa xalaatam ak mébétam mësul jóg mukk ci dem Màkka moo tax mbokk yi nga xam ne ñi ñi di dem dëgg-dëgg da ngay yëg ne ñu ngi def loo xamante ni eh, dinañ ci tase bëggu sëriñ bi bëggu sëriñ bi waaye nag am na ñu leen ci jiitu sax te it sëriñ bi woy na ko ci côté bu nekk boo demee ci xasidu raahiya da nga dégg mu ne sur man tuhibbu wa in sattat bi ka daaru wa aala min dunihi sahlun wa aw haaru laa yamna annaka buxdun min siyaaratihi innal muhibba liman yaxwaahu sawaaru moom daal xamal na ne nit ak kamu sopp Eh, yaramam gàllankoor na ci ngir mu dem siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nit ak kam sopp moom bu fekkoon na ay montagne dox seen diggante sax du tee mu koy siyaare du tee mu koy siyaare ci xolom di ko siyaare tamit ca lépp lu mu man ci di ko siyaare <coughs> xam ngeen ne loolu moo gàllankoor sëriñ bi ba demul ba 1928 bi mu fi jógee am na délégation bu fi jóge ci njabootam ngir demal ko màkk muy sëriñ maam Cheikh Anta Mbàkke moom demoon na àndoon ak sëriñ Mbàkke Buso àndoon ak sëriñ Falilu Mbàkke ak ñanu composé ca délégation ba ñëpp demoon dem ajali ki nga xam ne moo di sëriñ Tuuba mottali yéeneem ak i mébétam loole dëkkul ba ginnaaw bi bi nga xamee ne sëriñ Abdou Lahad Mbàkke toog na xalaafa moom tamit sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke demoon na bi muy demit sëriñ Abdul Ahad Mbàkke composé na délégation bu mag mu ànd ak moom daanaka mën na ne yoonu murit bariwut ñu demut woon ca aj googu ànd ak sëriñ Abdul Xaadir nan caa tudd ku mel ni sëriñ Asan Buso moom fa la des sax waaye da ngay yëg ne bi ñuy demit composé na délégation bu mag ñu bare bare ci njaboot gi sëriñ daam atta mbàkke sëriñ seex say sëriñ maam moor mbàkke mu si amatul murtadaa mi dégg ngeen fan yi mu koy wax ñoo ñëpp demoon nan euh, gis ngeen ni tamit ku mel ni alaaji baara mbàkke moom sëriñ fàllilu mi nga xam ne nekkoon na xalifa sëriñ tuubaa bi gën a nekk euh, njëkk a toog di sëtam euh, mën na noo wax na ñi ëpp ñu nu dem màkk ci senegal sax laay wax moom alaaji baara mbàkke mii fàllilu ca la bokk sëriñ Abdou Khadir mi tamit xamoon ngeen ne nekkoon na xalifab sëriñ Touba te demoon na Makka Alaaji Baara mii bokk na ci ñi mu kii bokk na yi tamit ci ñi nga xam ne dañ fee toog xalifaay sëriñ Touba wala ñu toog fi li ñu yóbbu ay nit ci Makka kenn xamul nu mu toll ku ci mel ni sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké yóbbu na lu bare bare bare bi mu toogee xilaafa yóbbu na ñu bari sëriñ du Khadir mii bi mu fiy jóge sax am na ñoo xamante ni wutaloon na leen ay billet ak paas ba ginnaaw ba dem nan euh, ci ci lim mujj bàyyi fi ci mébétam ak kiyam bokk na ci ñu fi yorooloon ñu mu yabaloon ngir ñu demoon màkk moom sëñ Abdul Xaadir Mbàkke mi euh, alaaji Baara bi mi dem na lu bari comme dégg nga li ma waxuma yoonu murit waaye yoonu Sénégal kenn ñi ko fi ëpp ñun dem màkk bariwul ba ci doomam ju baax ji di sëriñ Moustapha Alaaji Baara moom it mi ngi ci tànk yooyu bokk na ci moom it sëtaat yi ëpp lu nu dem Màkka sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke mi nga xam ne toog na fi moom it bi muy laata nekk xalifab sëriñ Tuubaa sax li mu daan yóbbu ci Màkka kenn xamul nu mu toll bare na ñu dem Màkka ñoo xamante ni sëriñ Sidi Muxtaar moo leen doon yóbbu ba ci ginnaaw bi mu toogee sax gis ngeen ne délégation la doon def boo xamante ni da daan jóge fii dem ba Ndakaaru di ñaanal ujaaj yi ngir ñu dem Màkka mu ñaanal leen tànn na fi ñu bare ci sëti sëñ Tuubaa ñu ci bari yóbbu leen màkk yóbbu leen màkk ngeen fàtte sëñ Abdou Lahad sooy bu yaakaar naa bokkoon na ci ñi mu mujjoon a yóbbu ak sëriñ mustafaa Mohamed mi jàpp naa ne demoon na fi màkk moom te xalifa sëñ ak ñu bari ñoom màkk rek ñoo xamante ni sëriñ Siidil Moxtaar moo leen yóbbu sëriñ mun mi it xam ngeen ne demoon na yaakaar naa ajug sëñ Abdou Xaadir googu it bu fekkee àndu ci woon it demoon na te jàpp nañ ne sax njort nañ ne àndoon na ca waaye e, dem màkk gis ngeen ko gis ngeen photo boobu siiw sax ci internet bi ngeen gis ko muy tawaaf ak di def ay farataam di dem màkk kon lii lépp day wane rek sëñ Tuubaa yàlla fay na ko ci màkk te bu jëkk-jëkk da nga daan dégg ñu ne murit yi fonk nu dem màkk waaye jàpp naa ne jamono yi nu toll li ma jàpp te jàpp ko te tam doon yàqin jàpp naa ne demati ca Kaaba ga di tawaaf te tasewu fa ak taalis taalibeb Sëñ Tuubaa léegi yaakaar naa mënatu te nekk at yi ñu génn ñi ëpp ñu ni dem màkk yoonu murit la te ëpp ñuy dem màkk jóge bàyyi ko Sénégal yoonu murit ca la bokk bañ nañ ko ba am na at mu nekk am na audience yoo xamante ni ñoo xamante ni fii lañuy ñuy di dem ñoo xamante ni ñi fi ñiy départ ñëpp ci dëkk bi leen dëkk doon taalibe sëñ Tuubaa di dem Màkka loolu bariwut ci yeneen i dëkk te at mu nekk ngeen gis ko bokk na ci loolu ma wax tamit sëtam yi fi nekk ñu ci baree bari yóbbu nañ ay nit Màkka liñ duy toog te demuñu ko Màkka daanaka bariwul mooy li ma wax léegi néew na nga demati barab bu yonente ba muy Madinatu wala nga dem Màkkatal mu <coughs> di tawaaf te tawaaf jàpp naa ne benn waxtu booy tawaafati te ca Kaaba te gisoo fa taalibi Sëriñ Tuubaa loolu moom jàpp naa ne yombatul euh, ñi nga xam ne nag ñoo dem ci at mii bu nu seetloo délégation yi li nga xam ne demoon na am na composement bu baax a baax ndax boo xoolee Sëriñ bu Buso ci wàllu xam-xam ba bari na lu bari ba ci montaram bi wax nañ ne jële na foofu xam-xam yu bari yoo xamante ni daf ko faa jëlee. Euh, ku ci mel ni Alaaji Fàllu Mbàkke tamit gis ngeen bi mu demee Màkka dafa doon def tawasulu daanaka doomi Sëñ Tuubaa yëpp yu góor yu jigéen yaakaar naa ñëpp tawasulu na leen foofa di leen ñaanal di ñaan di tawasulu ci seeni di ñaan di leen ñaanaleel euh, boo xoolee tamit ba fii ñu toll rek Sëriñ mun Muntaxa at mu nekk dangeen di gis ne day yable boole délégation yóbbu ñu bari Màkka ba ci gis ngeen fan yi ñii fi bàyyi ko daanaka yaakaar naa ne euh, xawma lim bi nu mu toll waaye bi ñuy wàcc seen wàccaay yu jëkk dañ ne woon limub jay suñ lan bëggoon ngir dem màkk dem googu ñuy dem nag gis nañ ne wax dëgg yàlla buñ demee di fa jàng xasida yeeg yooyu loolu it ñu ci bari wax nañ ci waaye euh, xam naa lenn li dangay ngay yëg ne ak bëggeel la lenn li da ngay yëg ne tamit ne dëgg-dëgg euh, li yaa soxna doon wax ci ikma bi laay bañ mu dal ma mu wax ne yenn saa yi am na dëgg yoo xamante nii dafa am ñaari yuy nekk ci wetam mooy ngay jéem di wax dëgg goo xamante ni kenn ñemewu ko wax nga ne naa ko wax loolu am na lum lay jural daf lay jural daanaka ak ñàkk teggin lay mujj xaw koo jur ci yow walla ngay wax dëgg di ko wetu wetal di ko wàññi loolu ak naa féqle xaw a nuru yooyu nag bëggunu benn dal nu ci waaye lu mën a am rek defin wi rafet na yéene ji xalaat bi waaye ànd ak xam-xam loolu tamit jàpp naa ne ànd ak xam-xam loolu naa ne danay baax lool ci mbir yu mel noonu rawatina nga génn dem jàpp naa ne ku bëgg a wane sëriñ bi yenn saa yi nga dem ci béréb yi ñuy jàngalee boo demee madinatu da ngay gis wala université ya nga fexe ba yóbbu fu mbindu sëriñ bi dem ca bibliothèque ya fexe ba yóbbu ko fa dem ba ca borom xam-xam ya nga waxtaan ak ñoom wax leen kan mooy sëñ Tuubaa bu jaree nga wan leen seeni mbind ak yooyu waaye nekk ci mbedd yi wala nekk ci marché yi di jàng ak yooyu yooyu xañ na mën ngaa jàpp ne da nga ci kii ndax culture culture du caaxaan culture mënoo ko imposer ay nit noo ko imposer sun façon mbind mi ak façon jàngin wi mën nga koy jàng ci naar ba daanaka lu ëpp téeméeri waxtu te du tax ñu xam ci li ngay wax dara bu leen di woon mbind mi du tax ñu xam ci dara kon métatub xamle ak euh, wax ñu mën a xam ki nga bëgg a xamle loolu ab méthode la loolu niveau bu rëy a koy def du niveau bu tuuti niveau xam-xam bu rëy moo koy def dem ci bibliothèque ya fexe ba yóbbu fa mbindu sëriñ bi dem fa niy jàngale ñoom seeni alxa seeni université nangam nga fexe ba dugg fa fexe ba jéem a wane kan moo fa sëriñ ba weccoo fa ak borom xam-xam yi ndax boroom xam-xam yi boo indee xam-xam di leen ko wax ñoom duñ la récité faaw ñu déglu la li ngay wax bu dee xam-xam daa mu leer ne xam-xam bu am njariñ la dañ koy daal jël ndax dañ koy soxla dañ koy soxla yow it nga mën faa roote leneen waaye di def loo xamante ni xañ na perturbation dina ci am da nga fa indi loo xamante ni xañ na mënoon naa am ak dal gu gën a am kii euh, defin wi tamit mënoon naa gën a nekk ci kii ndax boo xoolee tey lu mel ni Tuubaa gi jumaa ji nañ aaye ku fi yor téléphone di fi sinaab wala nga fi photo wala ngay filma sa bopp dañuy aaye euh, gis ngeen am nañu fi ñëwoon ne dañuy jéem a tawaaf ak yooyu dëgg la Tuubaa kenn du fi tawaaf kenn du fi tawaaf dañ leen fi aaye yaakaar naa am na kilifa gu mag gu fi ñëwoon di ci jumaa ji fii waaw daayira Muxaddamatul Xidma dañ ko aaye fan yi rek dégg ngeen ñu ne palaato yu ñu doon def euh, ci ci ci ci ci ci euh, jumaa ji ci orom bi aaye nañ ko ndax lépp gën a waggar sëñ bi gën koo kii jàpp naa nag kuy waggar sëñ bi di ko warmaal di ko kii jàpp naa ne rawatina yonent bi sallallahu alayhi ak dëkkam ba kaaba sëñ tubaa moom yow miy dem màkk ne da ngay demal sëriñ bi wala da ngay àggale yéene sëñ bi wala da am loo ci jublul sëñ bi eh, xoolal ndax sëriñ bi bu doon dem melo yi nga demee wala nii nga fay def ndax sëñ bi dina ko def te loolu lu jara bàyyi xel la ndax nit it sëñ tubaa dafa waxoon ne axsamtu billahi inni li nabi abadan xillun waxi bunu ma abaaxu ya abaaxu giñ naa ne maa ngi ci yàlla yonante bi mooy sama soppe mooy sama xarit waaye lépp lu mu bëgg bëgg naa ko lu mu bañit bañ naa ko loola mooy lépp loo xam yonante bi dafa koy moytu kon jàpp naa ne yooyu it war naa feeñ bu baax a baax baax ne Sëñ Tuubaa bu ñëwaloon boppam nan ngeen jàpp ne nan lay doxalee diggante mag yonante bi nan ngeen jàpp ne bu dee wër kaaba gi nan lay wëri kaaba gi yooyu yëpp yu ci bare bari jàpp naa ne sëriñ bi Euh, yooyu nag yu jar a xam la xañ na doo mën a xuus bu baax a baax ñu jàpp ne fa am loo jublu lu bokkut ak yéene ju rafet te fekk ne yéene ju rafet rek nga jublu ndax euh, aj màkk ak umra ak jaamu yàlla la jaamu yàlla la jaamu yàlla nag da ngay fexe ba mu bañ a kerej mu bañ yàlla nanguwul yokk nanguwul wàññi nanguwul yokk nanguwul wàññi euh, jàpp naa nag yéene ji moom lu rafet la lu màgg la lu lu lu lu ñëpp euh, lu sax la wala bokk bu ñëpp rafetlu wut it ñi ëpp te xelu rafet na waaye nag yu ci nekk daal jàpp nañ ne nit ñi ñuy fexe ba lépp loo xamante ni dañ koy def te mu laaj xam-xam ñëw ña koy jiite na nekk ci njobbaxtalu xam na nekk ñu nu tàññi ndax mbir yi yenn saa mën naa doon wërsëg rek ak kàttan waaye doyut faawu xam-xam nekk ja ñaare néew na lool <coughs> lu xam-xam nekkul mu àgg fa nga ko yéene àgg fa ko fa nga ko yéene woon wala yéene ja àgg fa ndax xam-xam moom laytaayam dafa rëy dafa yaatu laytaayam dafa yaatu te it Seydina Abubakar moom nga xam ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngal dafa wax ne inna diine naa mabniyun ala alaa mën a al aqli suñ diine jii danga naa yàlla nee na yonante bi nee na jiwril nee na waaye du lu jub sam xel rek nga jàpp ne noonu la kon daal jàpp naa ne ñu ngi wax rek kon ndokk bi nga xamee ne nit ñi ñu ngi bàyyi xel bëgg sëriñ bi ñu koy bàyyi xel ba di ko jéem di ca def lan man te ku nekk xam na ne Sëriñ Tuubaa moom bëgg yonente bi la koo xamante ni daa wax ne bu ma fekk bi fa mu nekk muy dox tànkam nara dëgg ci xaaxaam yi man sama lex bi lay lal ngir mu nekk dox ci kaw kooko ëmbal na yonente bi war ma ëmbal na ko kersa ëmbal na ko cofeel goo xamante gu jégg dayo la waaye ànd ak cofeel ko loole lépp ak xam ak xàmmee ak ràññee moo ci jiitu moo ci jiitu kon daal ñu ngi ñaan yàlla eh, li ma doonoon taxaw seetlu bi ñu ñaan yàlla may nu wérug yaram ak wérug diine yaatal sunu wër wërsëg may nu mujj ko rafet salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.